doo ci loo ne. sant Maolana. waaw taxaw waay waay waay sant Maolana. ça va bien. ñoo ànd. eh Fari kaay ala Fari. ñëw leen jàll leen ba pare. aywa Baara Mbaye Diagne. Baara Mbaye Diagne. représentant Anta Babacar

sant Anta Babacar Ngom ñëpp xam nañ ne ngay dara te ñeme ne terrain bi lool niñ ko defee woon parrainage citoyen noonu lañ ko préparé ci campagne bi ba tax ñu suñu xel fa daal génnaat rek waxtaan ak askan bi te xam ne jigéen la te mooy benn jigéen boo xam ne moom la ñu indi ci élection yi ñun que dafa góor ñi nag ñoo nekk suñu ginnaaw dañu góoral mais koo xam ne muy def social lu ko dalee ci xale bu tuuti ba ci troisième âge bàyyiwu leen politique politiciens yi nga xamante ne moom lañ fi daan def ñu bëgg ko fee jëlee jóg de politique autrement de politique et développement ah bu ñu taxawee dinañ ko bëgg a fal incha allah rabi 2024 yi gëm nañu kenn ko tudd 124 tabaab kan loolu mooy tool rek. aussi ah, du weeru koor bi comme que élection dafa bëgg a jël campagne da ngeen am benn programme boo xam ne particulier la pour mun a adapté wu ak ak contexte boobu. programme bi waaw man xam nga ne moom fii nii bi ñu jaaree moom dañ daan dugg ak côté. koor gi ak campagne bi day gën a métti parce que ñëpp gëm nañ ko xam nañ ko ci social te ràññee dire que notre président, dans son programme, ne les a nullement Le président, dans son programme, parle d'espoir. D'espoir pour tous ceux qui sont beaucoup. D'espoir pour ces femmes-là. Permettez-moi aujourd'hui de me limiter aux femmes. violences faites aux femmes parlera de la protection des femmes et des enfants. Présidente par la Maison de la Femme qui mettra dans les territoires du Sénégal et en cas si c'est nécessaire avec hébergement pour pouvoir les protéger les femmes et les enfants qui seraient en danger. Notre présidente, connaissant la force des femmes sénégalaises, parle d'ouvrir une banque dédiée aux femmes pour leur faciliter les financements, pour leur permettre de travailler et de s'épanouir comme tout un chacun. Notre présidente, dans son programme, encore une fois, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, au 21e siècle, tout le monde le on a l'école privée militaire de Saint-Louis notre programme par d'ouvrir une école militaire spécialement dédiée aux femmes à la Prytanée militaire aujourd'hui ces gens-là, nous le savons. On ne dit pas qu'il manque de choses, mais en tout cas, toute aide est la bienvenue, je suppose. Et comme c'est des femmes particulièrement, nous avons fait des, des, des choix allant directement aux femmes ou à leurs enfants. Parce que parmi ces femmes qui sont là, vous savez qu'il y en a certaines qui ont des enfants. D'accord Donc c'est des couches, c'est du savon, c'est du lait, de corps, c'est des, des culottes, c'est des chaussures. c'est des boubous innocents qu'on a tout donné, tout délibéré tout à l'heure quand nous étions aux côtés de nos sœurs, de nos cadets, de nos aînés et de ceux qui sont La campagne électorale débute aujourd'hui. Oui. La première Ramadan c'est dans deux jours. La campagne va commencer le nord. Est-ce qu'il y a un programme particulier Écoutez, comme on l'a toujours fait jusque-là, avec notre président de la bataille, nous allons nous adapter. Nous sommes dans